bëtu weesu na meddu mbelentaan maanaam maanaam Macky fi mu teg bëtam du lii ah. troisième mandat lay bëgg moom lay wuti mhm. donc une campagne en quelque sorte maa lay seetaan ak mon ay wax troisième candidature troisième <laughs> la quoi amul leneen sëñ bi bu fekkoon dafa bëgg visiter usine industrie day yebal ministre bi yore wàll industrie mu dem mais ici tout est un bon prétexte pour que moom mu def de la chose politique et mënuñu ko bañal parce que malheureusement ni ñu tëggee su suñu réew mais mais dañuy def conseil des ministres décentralisé euh, Cheikh Omar non loolu prétexte la dañu am président réew mi am président de partie mu boole ñaari cër yi bii moo koy mayaale mu xëccaale bële. Uh-huh. la moo tax euh, bu fa demee dañuy mobiliser ku nekk di nga ko wan ni ko maa ngi sawet masele xam naa dina mobiliser ñeneen ñi dina mobiliser. Uh-huh. Euh, bi mu demee Thiès yàggul donc période bi ñu nekk c'est-à-dire loolu mooy problème suñu agenda euh, dañu nekk ci période électorale et tout se tourne autour de des enjeux Euh, électoraux alors comme tu as dit amoon na yeneen question yu ëppoon importance yi ñu waroon def mhm. mais beneen bi Lamine man je suis pour que les jeunes se politisent moi je vous dis ah, il faut que les jeunes se politisent très tôt parce que si tu ne fais pas de la politique la politique te fera mhm. hmm? la wax nii le mérite des hommes intègres qui refusent de faire de la politique c'est de se faire administrer par des gens plus médiocres que politique par essence euh, non pas pas pas pas dans ce sens waxuma ko dans ce sens là c'est-à-dire on ne peut pas faire de la politique 365 jours sur 365 oui, mais malheureusement il faut avoir le temps de la politique après avoir le temps aussi de travailler pour le pays c'est ça que je dis donc donc donc même travailler la politique parce que la politique son projet il a son programme uh-huh. un projet Lamine l'a dit, c'est une réponse politique par rapport à la mobilisation qu'Ousmane Sonko avait donnée. Mhm. Mais au-delà de répondre a Ousmane Sonko, dans les discours, répondre à son gatsa gatsa, dañu indiwaat leneen Amadou Ba nga dégg ñu ne amuñu plan A amuñu B mhm. amuñu C. Mhm. et ça ça veut tout dire. ba Z yokku na donc du ay nekkul lu ñu nëbb wala lu ñu kii ci projet boobu la nekk. dafay politique voilà. la la la vérité yaa y a cette tournée là elle n'a rien d'économique. Uh-huh. alors ci euh, euh, c'est une comme les autres camps font leur tournée politique alors que. Uh-huh. après on di nga dégg nag ñu am naa la non moom waxul lii am na waruñu ko wax pour mu wax dangay def wala du ko def parce que wax na fi nii wii nii non ñenn sa dañ naal non nañu bàyyi lu conseil constitutionnel dogal. fa lañ jëme nit ñi maanaam affaire. non ñoom kay fi mu ne nee nañ yëf yi nekkatul yëfu justice yëfu politique la. ay piano si maan la xam nga piano si maan jéem a indi ay porox ndoolu ay buntu. Mhm. mooy loolu mais la vérité mooy li ñu bind si conseil bi dafa leer sans équivoque nul ne peut exercer. plus de deux mandats le choix de Thiès ki mu ngi koy wax léegi ak ak Idrissa Seck. c'est hautement politique reste quand une. interrogation parce que Idriss Seck on l'entend plus. c'est vrai. de plus en plus yaa ngi gis des gens de Rewmi qui prône pour que Idrissa Seck devienne le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. Euh, donc même le choix d'aller à Thiès a été bien planifié c'est pas gratuit peut-être c'est pour euh, profiter de ce passage-là pour justement arrondir certains angles pourquoi pas <laughs> tête à tête avec Idriss Seck avec les autres pour euh, mën a réformer waat euh, attention ah, en tout cas les gens sont sont en plein dans la l'enjeu électoral parce que Thiès c'est un bastion non bien sûr maintenant président musul woon am base boobu à Thiès ki ko doon sonal foofu tout le temps c'était Idriss Seck Idriss Seck a rejoint ses rangs mais aux dernières élections on a vu l'opposition commence à prendre euh, des forces mhm. donc tey sur le plan politique il a tout intérêt pour dem réunir sa famille déjà que difficulté yi noonu am sax moo doon ñi nekk APR originel mosuñu ànd ak Idrissa Seck te Idrissa Seck ñëw ñu yëkkati ay ñoom Idrissa Seck teg leen seen kaw est-ce que dinañ ko est-ce que la mayonnaise prend donc Macky xamul si lu mu nekk. Mhm. maanaam il va en guerre. il est en train de préparer ses munitions pour cette guerre. Macky dara newul ci maan bi dara newul ci bopp bi lu dul nu muy lijjantee élection bi toogaat. mu ko Serigne très rapidement. dem beneen sujet. xamante ni souvent damay dégg dañ koy jëmale ci opposition bi. nga xam ñu ngi prononcer question troisième mandat. Mhm. di wax ni nañu noppi nañu xaar conseil constitutionnel. mais je suis désolé de la dire aussi mënuñu noppiloo question yooyu mënuñu si noppiloo opposition ba pare. ñu gis des ministres de la république. li ci wax taxaw di ko assumer. c'est vrai des de la république. Mhm. ñu taxaw di wax ne amuñu plan A pour amuñu plan B Macky Sall mooy suñu candidat. Mhm. man je pense que question bi ak fi nga xam fi la Sénégal tollu contexte bi war nañ éviter lu ni mel. loolu nag bu amee sax dañ leen war a rappeler à l'ordre. Mhm. parce que question bi kenn waragul taxaw fii ne Macky war na mën a def troisième mandat. comme dañoo noppiloo opposition bi ci question boobu ñoom tam nañ ci màndu. parce que benn responsabilité rek laa leen di delloo. il faut que ñoom ñu xam seen véritablement lan mooy ministre de la république mu ñu jàpp ni Macky Sall lañ fi nekkal. Mhm. ni ñu fi nekkalee président Macky Sall noonu lañ fi nekkalee ñu nekk ci opposition bi kon donc am na kaddu yoo xamante ni warul jóge ci ay ministre surtout nag ministre Amadou Ba ma dégg ko mu amuñu plan A ba plan Z. Mhm. donc loolu vraiment je suis désolé de le dire mais. mais am na réew yoo xam boo ko fa defoon dañ lay rappeler à l'ordre comme c'est pas à l'ordre du jour kay ñoom ñoo ko wax nañ si noppi ba conseil constitutionnel prononcé wu léegi lan moo tax ñoom ñu mais Serigne waaw Serigne est-ce que est-ce que aussi est-ce que war nañu toog ba léegi aussi il faut être réaliste aussi benn moment bi il faut être réaliste mais l'intéressé lui-même qu'est-ce qu'il a dit le président il a évolué dans sa communication dem na fii xaw ma ban quotidien France la woon ne ne ne ne ne ne ce n'est plus un problème juridique. aux États-Unis c'était aux États-Unis xam nga loolu c'est très important. Mm-hmm. moom ci boppam mu ne affaire troisième mandat tout le monde a compris que maintenant ce n'est plus un problème juridique. juridique oui. cela dépend de moi. Mm-hmm. ça clôt le débat. mais est-ce que loolu est-ce que aussi ñun war war nañ ci nekkati chaque jour di ci wax. Mm-hmm. bu fekkee ni vraiment vraiment on on veut être réaliste. pour man la question est tranchée. parce que l'intéressé lui-même l'a dit. Lamine que, que cela les... dépend que cela ne pose pas un problème parce que parce que ñuy opposé troisième mandat bi yëpp lan lañ koy opposé problème juridique. bien sûr. mais quand lui il dit clairement que ce n'est plus un problème juridique tout le monde l'a compris et que maintenant. ça va dépendre de mon bon vouloir. <laughs> xam nga dafa est-ce que warati nañ ko xaar mu wax moom. dafa am dafa am lu am solo. loo moo tax ma ne la est-ce que war nañ. parce que polémique su amee bu fekkoon respecté nañ lu constitution bi wax. c'est-à-dire 31 euh, janvier 2012 euh, Mamadou Diop. Euh, décédé non dépassé nañ ko décédé. <laughs> après on revient sur cette même question. d'accord ah, Cheikh Omar. Cheikh Omar xam nga réalisme bi ma lay wax. réalisme de ça aussi. réalisme mooy Cheikh Omar ay. Cheikh Omar non xaar ñu mën a dem ci beneen sujet bi. on n'a pas fini de compter des morts pour des élections parce que fii mu jëm nii ce n'est pas souhaitable mais il aura encore plus de morts. bu dee la dégg xoolal xoolal déglul ma wax la saa yu ñu waree falu président war a soppiku ci am réew. heureusement président Abdoulaye Wade waxoon na ni je ne marcherai pas sur des cadavres uh-huh. pour aller au palais. Uh-huh. dañ ko fal ay urne folli ko ay urne moom mooy seul président bu ñu fal ay urne folli ko ay urne fii ci Sénégal du Senghor du ab Diouf Macky Sall dafa falu kenn folleekoogu ko uh-huh. li tax saa yu ne ñoom président Macky Sall 2011 2012 ñi dee du ñoom lañ doon àndal ci manifestation yi est-ce que bi faloo dañ régler loolu bi ñu faloo lu ñu ubbi lancer chasse aux sorcières daal ne parce que ñii mën nañ ñu remplacer. miin nañ nguur jóge nañ ci nguur jàpp nañ ne am nañ ay richesse pourtant c'est des pertes de vie humaine. deux mille déglul rek ma wax la. réew mii fii fii laa taxaw daal ni leen xanaa bakkan dafa amul njariñ ci biir réew mi. beneen bi ñu ñëwaat y a quatorze personnes qui sont mortes. réglé wuñu ko même les politiques yi nga xamante ni ñoo ne ci opposition bi jàpp ni ñooñu ñoom lañ doon soutenir ba ñàkk seen ay bakkan taxawuñ leen benn yoon jëluñu pôle d' avocat incité wuñu seen député yi à ce qu'ils se pour ça parce que xam nga lu leen ñor puusal ma toog donc ñeneen ñi nga xam ni dañuy topp ci loolu dootul périro ñi nga xamante ni dañuy topp ci loolu lan mooy solo si nu à notre niveau qui sommes des journalistes des hommes de médias dañu am rôle bu am solo buñ ci war a jouer démarche politique waxu politique meeting bi wax na lii def na lii et tout cela ça ne doit point nous intéresser nañ def focus ci liy njariñu Sénégal. Mhm. liy jëmal Sénégal kanam. Mhm. les questions d'économie les questions sur les infrastructures. Mhm. récemment président Macky Sall et d'autres chefs d'État ñu woon fii nii jam ñaajo di waxtaan ci lan sur le financement des infrastructures en Afrique. est-ce qu'il y a package boo xamante ni si.